Euh, parce que parce que parce que ñoom ñii ñii ñiy wax. ñiy communiqué di wax est-ce que parce que lu toll ni état du Sénégal. président de la République di dem sommet war fa daje ak ay président gis nga ñi président recevoir par rapport ak sur le plan étatique liñ la wan un président bu war a ñëw am agenda ak calendrier bu toll noonu àdduna war ko fekk Amérique xam soxla ko Amérique bokk ci fii bokk ci gaz bi ak pétrole bi président di ñëw sécurité ak fa mu war a dem non ñoom ñoo gën a soxla président ñii yuuxu di politique ki ki ña fay ñëw ñoo gën a soxla parce que fii dafa am lu fi nekk. Mhm. te suñu état tamit ñoom ñun ñun suñuy suñuy opposant ak suñuy activiste mën nañu ñàkkal ñàkk fayda ñàkkal fayda état mais suñu état ñàkkul fayda. Mhm. suñu république ñàkkul fayda fi ñu côté ñun du wàcc. Mhm. xam nga moment boobu noonu ñu lay wan manifestation yooyu burdu yi mu ngi toj foofu. boo demee état à yi ñi yor ñi ci politique yi ay refusé ay mécontent ay truc il faut qu'on revoie ñan def parce que cette formule là dafa ñaaw. ce que c'est pas un acte de ou non xam ex xam nga man dama Ousmane Sonko. na lu ko diaspora parce que ni saga te ni ñi wax lañ bok, te il se réclame de lui. li mu yàqule bu weesoo fii Walfadjri Pape Alé Niang ñi ma wax ak ay Moustapha Diop ñi yoroon communication yi di wax affaire yeeg yooyu boo demee diaspora presque ñooy ay militants ñoo ëpp ñoo ëpp si ñuy dugg fi mais bokk dañ ci ñi ko yàqal. parce que ces discours de va-t-en-guerre et ces discours guerriers mais dama gis profil ñi koy xele ñi ñiy réclamé wu ni moom la ñuy soutenir man gis wanee guñu seen i carte ak seen i mais moom lañu ñu réclame te ñoom it mësaguñu bind communiqué officiel ñoom mësuñu bind communiqué officiel bu jógee ci moom. si c'était lui man maay bind communiqué dugal ci touru ñooñu dugal ci mbam all bobu boobu eh, ton dugalaat ci benen mbam all bi euh, euh, ki ki dëkk ki dëkk Kaolack dof bobu dof ban ki dëkk nek Canada. parce que man mbam all duma japp jàpp turam. nit ku bax laay japp turam. comment comment il s'appelle l'ancien rappeur là amul keuy parce que ñi ne fofu yor live yor ki di liggéey di wax amuñu luñu def. Mm. Combien d'étrangers Ola SN c'est un site spécial qui nous montre des Sénégalais yo boo koy seetaan da ngay wax ni ni ñii fu ñu jógee ñëw ba installé ay industries yu mel nii te bitim réew googu la ñu jógee boo ñaar ak trois entreprises ñu mais ki am liggéey am jot di liggéey di jaamu yàlla mais ñi nit ñi nit tijaan yi def waa kër sëñ Habib yi ba jënd fa zawiya ba bëgg jënd fa benn ancien fu fu ñu doon jaamoo yàlla beneen diine ñu jënd ko foofu pour jaamukaay yàlla ni fa waa Bamba dey yi def ba am ay kër Serigne Touba di nekk di wàcc ay xasida di fa màggal léegi mhm. bay jël en charge añu ajjuma yi mais ñi nekk ci mbedd yi noonu di live yore téléphone yi yore vie am nañu liggéey est-ce que ñooñu am nañu am amuñu jot gis nga dama wax ni forme bi mhm. forme bi lañu wara war parce que ñun politique bu ne amna na fi palais Bourbon Abdoulaye fekk nañ ko fekk na fa Abdou Diouf bi Abdoulaye di gis na Abdoulaye bi mu demee palais Bourbon fekk fa Abdoulaye indi ay affiche indi ay pancarte mais bobu c'était un combat intellectuel civilisé attaquer fa Abdou Diouf ci discours buñ ko fa invité won benen bi moy som Abdoulaye fait Boigny au fait Boigny bu Abdoulaye wat mais ñom ñess ñom mata Matassi Diallo président Matassi Diallo mais ñoy ñoo dem bu ci buntu fi mu doon jëlé prix bi tok sol seeni manto yor sen pancarte civilisé yag na fi contestation ni nit étranger dem fek xam nga deuk bo xam ni góor day marche xar di marche di marche pour lu ñaaw ay LGBT deuk bo xam nit meun na def lu ne ci mbedd ko manifester fa du du du du problème du ndam genn taxaw talal yuxu sa mais wax di saga nday nit di dóorante ak ay nit ñun xamuñu politique boobu. nañ si vidéo yi des images yoo xamante ni. tax dañ ko xamul. fariñ tuur nit ñun xamuñu ko. deux 2011 a gën a mille 2011 moo gën a métti fi place de l'obélisque ñuy xeex contre Wade coup d'état war a am Guinée Bissau te bu ko coup d'état jàllee ki ko nar a jël mën naa taal Casamance Alioune Tine génn na ci plein xeex mille 2011 woo Doudou Wade dem ci pale bi toog ak président Ablaye Wade ñu régler le problème Guinée-Bissau Alioune Tine xëyaat ñëw ci manifestation yi loolu bu amoon tey jii nii ñii ñii vision yi ñu am nii nii lan lañ lay wax mais mani Ablaye Wade ku ko gën a doon démocrate ibbiwul xal ñaari parti yéen manifester leen fii ñi d'accordul non ñi d'accordul wii manifester wu mais aujourd'hui ñun ak waa PDS ñun M23 ak mouvement yi ay xarit lañu tuddante ñu doom xaritu Barthélemy xaritu ab Bart Thierno Bocoum la man Thierno Bocoum keneen euh, bi LDMPT parce que dañ daan daje d'idée c'était la confrontation d'idée xeex la mais mën nañu def li ñu war a def photo yi def ay images d'accord na defar ay textes ay livres blancs affaire yooyu ñëw distribuer ko flyers bi saagante nday bi ndax nit mel ni moo gën seen ndey pourquoi une nouvelle forme. parce que pour c'est parce que leader yi incarnent loolu ñoo leader yi ñoo bëggul seeni militants ñoom leader yi le la tout parce que leader bu baax do digle lu baax du bon bu ko koy def bokk sa njaboot. on a une ma image boobu ñu jox Ousmane il a yi tas affaire yeeg yooyu mais c'est pas bon pour un futur présidentiel. si ils ont un bon projet pour la diaspora et vendre le Sénégal c'est pas ça c'est pas c'est c'est pas baaxul parce que on ne peut pas construire. ben pi wala ben ben ben ben jeunesse si si kaw violence ak saaga ndey xam nga mën d'accord mais violence mën jogi ci verbe ci ci débat mais saagante nday muy dess ci yaram nga koy xol nit bi nga saga ko nga top ko diko xol mu am haine mais ñi ñi toog man li wax gars yi mu ne leen ku dem feulé contano nek ci neeg bu xat wala lal bu ndaw wala am problème lo lek ak lo nan yow la ñi sen nday liggey ñaanal fi ñu am barke sutura ñu ngi dund de ñu ngi magal ñu ngi gamu ñu ngi jëm burdu muy neex jinn ñi muy naqari ñin ñi ñu ngi sant ak sutura parce que état yorul suñuy dund ku sa ndey liggéeyul clamel sa ay ku dem bitim réew say idée yàqu say projet yow la mais gëmal sa bopp li ngay def tubaab bi du ko def parfois les gens les regardent comme des animaux parce que ñoom ñoo gën a ah, ñoo gën a mbaame tubaab ñoo gën a ci lu mais tubaab ba gën a bon gën ci lu yàlla bind parce que kuy boole góor ak góor ay loi ak affaire yi yooyu te pourtant ñoom yooyu noonu ñu ngi liggéey ci restaurant góor Nous ñu ngi lem ñu ngi def ci yooyu de yooyu yooyu il voit pas mal te tubaab ba gën a gën ko def mais ñoom ñu bëgg ba pare di international di ko ndam la sénégalais ngeen nga saaga ko saaga ko ndey xëpp ko asib xëpp ko kii dem dajji buntu xam nga njàmbaar mooy lan. Mhm. mooy comme Sophie Gueye lu mu def les racines de l'espoir très jeune dajale euh, so nuyu di social tabax immeuble pour xale yi. te te politiqueul deful dara musul nekk ci politique dëkk ci Sénégal nekk ci viatique boobu loolu ñoom leader yi tax ñuy sonn musuñu ko def. leader bu nekkee politicien lay doo ko commencé naan maa ngi maye sama salaire rek wala bu nekkee ci biir état ak administration du lijjanti coono sénégalais kenn defu ko fi li ñuy wane ñi ñuy wane Ola SN ñu góor góorgóorlu ba ba ñëw teg mais li Ndiouga kebe def fii ci réew mi li Djily mbay def fii ci réew mi ci ay immeuble ki jàkka ki ay juma ñoom homme politique yooyu suñu suñu avion la ñuy jël suñu mais loolu si état bi am na ci part de responsabilité mm. parce que booy voyager war a dem à l'étranger da nga xoolaat sa délégation. war nga mëna organiser wu bo boy dem sa parlement ñi d'accordu lak yow ñi d'accordu lak yow ñu and ak yow ci délégation bi ba paré dépolitiser les consuls là consul consulat politique politicien yoy mo jur li il faut qu'on revienne les consuls dañ ko wara dépolitiser jox ko les diplomates parce que bo démé ci dëkk ñëpp a dëkk parce que tamit di nga gis ñu dem à l'étranger certes amna ci ñom tini ak lu munti xew yar ak téguin lañuy xexé ak discipline mais il y a des opposants très disciplinés xoola Cheikh Bamba Dièye bu magal jotee mu summi mbubbam yëpp doon taalibe xoola Talla Sylla mu ki jotee mu dox ba Touba formule bobu xoola Bamba Dièye dafa yarou tak na boppam ci ñek buntu assemblée nationale kaddu gu set lay wax kaddu gu sel même ga Gakou sa dafa élégant won affaire yi yoy mais gis naa gaa ngi koy poussé léegi ci ses trucs ça paye pas yu saga wax ju reuy xam nga lan lay fay quatre murs parce que fii réewu discipline la réew état la bu am autorité mënoo toog quatre-vingt-cinq ans am ñu doon jàngi nekk ay mas affaire nga yeewu ñëw taxaw naa leen yaa bon ak laa di traîner ak di ko wax mën nga koo wax ci sa rajo wala sa télé wala ci sa portable mais boo ko waxee fii ci mbedd bi génn ñu defante ko ak yow c'est ça le problème mais bu nan ngay royee ku baaxul dëkk yoom esclave fa amoon États-Unis dëkk boo xam ne ay dañuy dañuy dañuy autoriser yu kenn xamul dëkk boo xam ne ay loge yu kenn xamul la fa ne nga naan démocratie fii ñoom dañuy wax dëkk moom da ngay saaga sa yaay dëkk boo xam ne dangay téléphone téléphoné sa doom boo ko dóoree day téléphoné Amérique 911 ne ko sama yaay moo ma yar nga naan kooku ngay royante ak démocratie nañu comparé lu comparable lan moo tax bu ñu amee doom duñu bëgg mu yaroo fa ñooñu la ñu bu ñuy wax démocratie wala ñuy wax ay liberté mais on n'a pas dit libertinage mm-hmm. wala liberticide on n'a pas dit ça kenn liiburul ci aduna nit sax dafa exigeant ak parce que ñom ñi sax am ça. mais problème personnel yi ñu am ak président pas des problèmes gouvernance la am une carte électeur alors donc ñu ko fofu non xam nga man manifestation dama ne Ablaye Wade Palais Gourgon. Mhm. contre Abdou Diouf la wul ni opposant très virulent et truc Walker Khalifa Sall yi bi may def pétition Khalifa Sall ñom ya Ami Diop def nañu marche Paris def ben espace dajale fa ñëpp def affiche yi taf def ci tableau yi mu ngi il il c'était la communication waron nañ sax mëna a dugg mais légui bu fekkente ne tamit dañu am état politique politicien motax ñi wara ñëw ñoo war indi offre yu bees. surtout état politique politicien tamit mom bu waree déplacer wu. il dépense des centaines de millions et des milliards pour délégation ñoo xamni buñ fa démé amuñu fa benn njëriñ. Mm. Il fa lenn lu fay consul politicien parce que tamit li tax xeex bi di am un consul politique nommé ko parce que day politique mais ñi fa nekk aussi tamit di politique gis nga diaspora député diaspora dafa amul njëriñ man selon moi amul njëriñ gis nga loolu président Macky Sall bi muy ñëw te diaspora musul ànd ak pouvoir mhm. président Macky Sall diaspora la amoon doole bi muy a gagné parce que diaspora tout le temps dañu bari ci lu ñuy mer. alors rupture bobu lan moko indi. mais biñu ñëwé ñëwee neexal jël décision politique bobu indi leen quinze députés de la diaspora mais après mam Diarra Fam député Italie légui lutax tax mu ñibbi si watul pour nekk député étranger. député étranger am ni mëno am biir régler wuñu loolu lijjanti wuñ ko mais ñan ngay si ñu né la benn zone yëpp yow yaay député bi mën nga réglé problème le mieux c'est de réformer les consuls encadrer ko ba nga xam ni ku wara doon consul association yi nekk fofu ci dëkk yi. mais association yi ne foofu di liggéey as daayira yi nekk foofu kër Serigne Touba yi élagement El ñi ko téye ñi fa organiser genre yooyu ñoo war a composer ñu am seen biir élire kenn. ci dëkk bi ñu xool ki gën a ràññeeku ñu def ko consul nommé ko fii. parce que ñoom mu am mandat euh, ñoom tamit dañuy. mais ñu supprimer député diaspora parce que député diaspora boo xam ne boo ñëwee seen xeexu politique seen xeexu leader yi. ñoom aussi la ñuy gën a xeex xeexu Sénégal. Mhm. ñoom aussi dañuy am ay jafe-jafe mais pour ñu mën cee taxaw rek c'est tout le temps. Ah, problème xam nga côté diaspora bi surtout ah, dañuy am ay problème xam nga soo demee ci côté diaspora bi. Mhm. mais mais boo demee association sénégalais yi gisuma récemment Maroc. Mhm. association sénégalais yi nekk Fès ñoom mais def assurance pour nu ñuy seen ak affaire récemment Casablanca gis association bi dem di consul bi Maroc ay ay Amérique ASA association des Sénégalais de l'Amérique mais euh, li wax mooy Cincinnati boo demee Italie mais dama am xarit yu bari dañuy wax ni kër Serigne Touba yi fay refuse. ñoo yooyu mais bourg de Paris c'est très belles images. burdu yi genn pari moment bi ñii di saaga di lamme ñi ñaaw yi di karang karang yi ñii ñu ngay dubb yàlla ñu ngay zik parce que ku am yàlla am yiw doo tal ay mbedd ku am barke doo taxawaalu ci ay mbedd naan dañuy xeexal suñuy génération nan lañuy ñuy suñu kuy xeexal suñu moy nga fexé ba sa doom yoy nonu nga yar len parce que yar am te yar woo mo ñaka yam yem teggin gis lo gis Mais pourquoi les gens focalisent leur vie viatique Mais au Sénégal, il y a combien de personnes Ni réussir, ni l'État, ni le gouvernement, ni la politique. Mais le ce que dire. Les supprimer parce que l'État, Abdou Diouf, l'État na paatu ku que parce que consul yi dañ ko parce que bu doon dañ koy affaire étrangère pour les njëkk a war a ñan ñoo fay dugg mais parce que da ngay gis ay politiciens parce que clientélisme bi am fofu la consul yu bari bi ñu méré nonu ñu bari nek ci Congo bi jamonoy ga ñass ñu tànn ñu musul ci kon mais dañ ko wara a encadrer mhm. li la wax ci conseil municipal moy l'ensemble des chefs de quartier élus ou les conseils de quartier élus fofu la maire wara joggé mais si vous êtes dans les pays étrangers tous les associations les daïra les OIE, les kër Touba les associations yi fay def ay œuvres ñoo élire sen bir par mandat de consul. moi mhm. am la maison de Sénégal je fu mu nekk. Mhm. bu ko régler les problèmes des Sénégalais ba pare nous exiger parce que gis une association yu nous étranger politique. parce que les politiciens meree Abdou Diouf ndax nous woon lii wëg ngam bu keneen ñëwaatee bu ko réglé mu mais 15 députés diaspora ils nous la seen poids électoral lan la et bu bu bu étranger ñu taxaw ni ñoo ah da ngay xool les bu daan génn à l' étranger bu étranger paree rek nga ne élection yi jeex na. alors que après bu ñu paree fii Sénégal voté nga xam ni leur pourcentage da ngay dégg ñu ne non bu ñu xeeb nangam nangam. mais cëpp député diaspora lañu wara parce que Macky Sall neexal len parce que mo japon ni mo fa gagner day continuer mu def ko 15. et pourtant mais soxla wuñu loolu ay 15e région 15e région diaspora xam nga fan la amee sens. Uh-huh. ñoom sen banque bop banque de l'habitat yi am fa ay succursale logement yi ñu def ko ba paré ñu ñu fexé ba nga xam ne ni bo nekkee à l'étranger mën nga fa jëndé kër fi dabax ko dem fa ñu loolu la ñu régler corriger ko corriger aussi le système de de de de de de de de d'état civil bi am fi ak bi nga am mu problème nationalité mais da ngay gis ñi nek à l'étranger ils font du faux du faussaire ñi pour ñu dugg fa parfois ñoy yedd ñi ku dem dugg sont tour wala def leneen ñoy tok naan jour comment tu as fait pour entrer dans ce pays ah, tu as créé de mensonges, tu as falsifié tu as fait truc et il y a des politiciens il y a des fen il y a des mais c'est leur vie. mais dire ce animé parfois du n'importe quoi parce que réalité mais nous sommes politiques, politique mais nous politique association il faut normal il faut fa politique mhm. D'ailleurs, il faut normal politique consulier rek moo des te loolu consul yi programme yii di ñëw nii programme affaire euh, politique étrangère u yenn candidats yi mais nañ ko ci dugal ñu dépolitiser toutes les conseils parce que consul yooyu ñoo aiguiser apité yooyu parce que FAISE fonds xawma lan ñan lañu ñu ko financé booy séddale affaire diaspora nan nga ko financer ministère des sénégalais de l'extérieur normalement warul nekk politicien des diplomates chevronnés mënoo créer ay diplomates yu ne fa ñu ñu liggéey jàng ba pare ñëw bu ñëwee ci ministère affaires étrangères doon dem ci tiroir yi nga avez fa ay conseil diplomatique bu avez joté nga jël commission bi avez ay médecins yu la neex alors que normalement warul démé nonou